wala day naa mazid yal na ñu ko yàlla defal moo tax bal axyaaun bal li fi nekk axyaaun ñu ngay dund ànd rabbihim fa seen borom yurzaquna mu ngi leen di wërsëgal ay wilaaya farixiina ñoom it ñu ngay bëgg bi ma aataahum ca lam leen jox allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam la gis nga ko moo tax ku doon yàlla doon yonent bi wa yastabshiruuna ñu ngay bégal bi ladina gaañ nga xam ne lam yalxaqu ñu ngi leen bàyyi ginnaaw <laughs> lam yalxaqu bihim mooy ñun ñi ñu ngay bégal gaa yi ci seen ginnaaw naan leen lan allah xawfun alayhim bu leen ragal waaye fii neex na de wala hum yaxdanuuna oustaz mbayka bi ngeen xam moo ko daan fire regretté wuñ fañ jóge te rëcc wuñ fiñ jëm ah <laughs> oustaz Mbaye Ka moo ko daan firee noonu mu ne regretté wuñ fañ jóge te rëcc wuñ fuñ jëm mooy laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun regretté wuñ fañ jóge ndax bari na ko jógee àddina yaa ngay regretté bari nga bàyyi nga fi ay immeuble te fa la amoo fa baraak waaye nga bàyyi fii ay immeuble fekk fa ay château wa huwa Seydi Mouhamadul Mansour ay immeuble la fi bàyyi waaye ay château lay fekk ca boromam bima aataahum allahu wa rasul farixiina bi eh, lu mu ci def fare bi ma ataahum allah wa rasul wala min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalxaqu bihim allah xawfun alayhim wala hum yaxzanun yal nañu yàlla boole ci ñooñu ci barkeem yal nañu yàlla boole ci ñooñu ci barkeem yal nañu yàlla boole ci ñooñu ci barkeem dund gi mu dund yal nañu yàlla may ñu dund ko at yi mu am yal ñu ko yàlla may ba may ñu at yu ëpp yi mu am sax waaye ci barkeem kàttan gam amoon yal ñu yàlla roof kàttan gu ni mel wala gu ko ëpp ah daraja ja de nuñ ko am waaye yal nañu yàlla cofal ci darajaam ya may ñu ci wërsëg wa mu amoon it mënuñ ko am ne waaye yal yàlla cofal ci wërsëgam sulu su wërsëgam rek yal nañu ci yàlla jox suñu ci yàlla joxee rek ñun suñu affaire baax sulu su wërsëgam rek yal na ci yàlla tibb jox ñu ba ñuy bañ koy toppandoo ci mbaax nam daan doxalee ñu di ci jéem di doxalee noonu nam daan waxe it ñuy jéem di waxee noonu ndax wax nañ leen léegi ne kenn mësul dégg lu ñaaw jóge ci ñu sëñ Mansour jëm ci kenn tariqa yi fi nekk sax kenn mësul dégg ñu ne murit bii sëñ Mansour a ko wax lii wala tarixa murit sëñ Mansour a leen wax lii wala tarixa xaadiriya sëñ Mansour a leen wax lii wala tarixa laayeen sëñ Mansour a leen wax lii mësul am njàmburam rek sama maam ne loo teg loo teg sama maam ne loo teg loolu rek la tal talut leneen moo tax it mucc na ci ñépp waaye tey lay gën a bég nag ba mu fekkee jee baayam Seydi Aboubacar si te bëgguloon ko dut moom ak a bëggoon baayam ak a bëggoon sëñ Babacar si ku bëggoon sëriñ Babacar si la loo wax mu ne sëriñ Babacar lu ko jaaxal mu ne sëriñ Babacar fa tabarakallahu du lim ko jur rek nag daf ko xam waaw daf ko xam ñaan ne daan naa dem ci sama bàyyi Mansour moom lañ ko tuddee alaaji Mansour nee na mu jàngal ma ba noppi mu ne lu bari ci turi yàlla moom ma ko jàngal turi yàlla li ci sëñ Mansour xamoon kenn xamoon nu mu toll mu ne sëñ Mansour ba turandoo bi da ko <laughs> njabootu Alaaji kenn du la ci gën a kenn du la ci gën ndax man lañ la tuddee ah <laughs> ko daan wax eh njabootu kenn du la ci gën a kenn du la ci gën man lañ la tuddee man waaw <laughs> Alaaji Mansour mu ah, ne eh, Mansour lu la neex defal ci kër gi yaay borom lu la neex defal lu la neex defal waaw ah, njabootu Alaaj doo ci yéesan man nañ la tuddee ah, loolu rek day assuré nit te feeñ na tey ba mu demee ba tey dugal ci waawoon gaaroo moom waxuma kenn nag nit ñi loo wax ñu ut fu ñu ko dugal dugal Tiwaawoon da ngay yëg ne Tiwaawoon vidd na maa la ko ndax xaal bi mu amoon wërsëg wi mu amoon ñépp di fees dell ci kër ga muy ñaan muy nangu kenn defatu ko ku ko amit defoo ko il faut dire la dëgg la wala dëgg ku ko amit waxuma ne amuñ ko de waaye ku ko amit defoo ko waaye kenn ku nekk ak sa cër nag moom loolu la ko yàlla siddi woon moo taxit boo demee ci kër ga tey da ngay xam ne borom daara ji nekkatu fi boo duggee ci waawoon di nga xam ne borom daara ji nekkatu fi yal na ñu yàlla defal sutura yal na yàlla defal sutura sama soxna bi nekk fii moo tax feebaram bi du hasard yàlla na ko yàlla wéral nag waaye du hasard de <laughs> moo tax bi nga ma nee feebar na rek ma ne waaw ñàkk wallaay baayam xaritu sëñ Mansour la woon faama mu tëddee feebar dama dem feemeeku deux jours troisième jour lañ ci teg mu génn àddina dama ko enregistré mu ne ma man de damay dem mu ne ma sëñ Mansour ñëw na fi biig tuddal beneen kilifa gu am daraja sax mu ne moo kooku man dama foogoon ne ku am daraja la ndiketi amul benn daraja sëñ Mansour kupp daraja fuuf kooku ñemewuma tudd turam billaahi wal man dama tiit te dama ko fonk ko ci kaw mbadaxal mbadax kilifa gu mag la mu ne ma moo kooku de tolluwul sëriñ Mansour fii ma ne ah kon di wilaaya kenn xamut lan la mu ne ma biig daal la fi ñëw dama jógal sangu mu ne maa jógal sama bopp dem ci tuuti te boobu mënta jóg maa jógal sama bopp dem ci toilette bi sangu génn ñëw toog nee na mu ne ma tuuti moo la dese pour nga dem bareetut li ci des bareetut dafa am yuñ la doon dindil teggil jeex na mu ne ko sëñ kër Sy ngi nii ñoo ànd nee na ma xool gis sëñ Babacar xool mu ne am na keneen ku ma gis waaye xaw ma ko nag nee na mu ne ma yow lañ jël si liñ doon bàyyi mu génn ci yow génn na léegi da ngay dem mu ne ko waaw ma yow foo jëm ni mu ne ko man maa ngi jëm dëkk bale Japon sëñ Mansour ne ko maa ngi jëm Japon dafa am trambulement de terre bu fa war a am te bëgguñu mu am ndax boo amee lu rëy dana yàqu lu bari dana yàqu moom lay dem pour tiinu ji yàlla bu mu am su ngeen seetloo at boobu 2014 takk leen séisme bu gàtt am na fa waaye amul benn moor seetlu leen li ma leen di wax Fama Wade dama wax lii mu ne ma sëñ Mansour ne ma maa Japon laa jëm dafa am tremblement de terre bu fa war a am te bëgguñu mu am bu amee la muy yàq day bari dañuy dem pour tiinu yàlla bu mu am benn séisme bu tuuti rek moo fa am kenn ngaa gaañuwu ci mu ne ko su ma fa jógee nag ba dellu yow ci ngay ñëw wax ko yu bari tuddal ko kilifa yu bari mu ne ko nag waxal diw mu ngi pikin ñi sama waa kër yi xam nañ waxal diw mu ngi pikin waxal eh, seen mbokk ya nga ne leen duggagul àjjana sëñ Mansour wax de mu ne ko waxal demal ca mbokkam yi nga ne leen duggagul àjjana nañ ko génneel ay sarax te baalul ko àq ñooñu mu jàkkaar lool kër ndax daf leen daan tam dëmm <laughs> wallahi pikin xam naa kër ga xam naa kan la waaye du lu ñuy wax muy faama waxoon nañ nañ yónnee ci ñooñu ñu yónnee ci ñooñu ñu togg li Serigne Mansour waxoon dugg ci kër yooyu ne leen diw nee na ngeen bal ko àq ci ëllëg sama ñëw mu ne ma bàyyi nañ ko dugg naa jën ma jógee fa une heure matin laa fa jóge mu tegal ma ci ne ma li ma gën a yéem nag bi mu waxee man ba dem bër set mu ne Baba Gueye Mansour ñëw di ma seet si mbub mi Serigne Mansour sol moom la sol mu ne ma fii baaba Gueye fii la toog léegi mbubb mi sëriñ Mansour soloon bi may seet ci biig mbubb moomu la sëñ Mansour la Baba Gueye sol ma ñëw wax ko baaba Gueye Baba Gueye ne ma Mansour sëñ Mansour mi sax laal demee gàmm la summi mbubb mi jox ko baaba gi moom la soloon seet si faama moom la sëriñ Mansour solaat seet si faama noo koy firi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqin ah te sëriñ Maw ni ñu koy waxeeti Faama Wade sëñ Mor Diop mooy sëriñam moo ko jox tarixa ci jan maa ko yóbbu ci alaaji Abdul Aziz pour mu jox ko alaaji Abdu ne ma yóbbu ko ci sëriñ Mor bi mu génne àddina ak yéen ñëpp gis ngeen sëñ Mor a ñëw fii taxawu ko jullee ko naafilaal ko defal ko lu ne ba yóbbu ko ñu denc ko ak sëriñ Bay Abdul Aziz waaye sëñ Mansour la ko yàlla boole. sëñ Mansour lay bi sëñ Babacar si yebal moo jàpp ci loxol faama yóbbu taalibe Tijaan loolu lay jëriñ kenn ku ne dafa am ku ñu lay affecté mooy jël moo lay jël si booy dem waaw booy dem moo lay jël si pour dalal sa xel pour wan la ne fa ngay dem lu lëndëm amu fa lu naqari amu fa ndax maa nga fa xam nga nit bu la jiitoo ci bërëb na la marhaban sa xel dal wa hakada yan nañu yàlla taas ci barke yan nañu yàlla defal sutura sutura daa iman li ñu am Euh, yombul waaye nii ñu nekkee de buñ ko bàyyiwul dañ ko am de ci seen barke nag waaw nii ñu nekkee ñun buñ ko bàyyiwul dañu ko am ci seen barke bu xadara bi dakk waxuma fii de fu ngeen mën a nekk xadaraa leen fa bu leen neexee sax fii bu leen fi ñëwati billahi alladi laa ilaha illa huwa alxayul qayim woowuma kenn soit clair billahi woowuma kenn kum neex bu fi ñëwati xadara man kott ak sama njaboot ma fi xadara waaye dee leen ko def fu ngeen ko mën a defee rek damay bañ ñu foog ne fii laa bëgg ñu fi ñëw di xadara déedéet fu leen neex dem leen waaye xadara leen rek bu seen xadara dakk bu seen laazim dakk bu seen wasifa dakk bu dakkul rek yàlla taas ñu ci barke ñii ñuy waxtaane ndax ñoom lañu am looloo leen ko may kon nag ñu it nañ topp ci seeni tànk fa tabarakallahu al ahsanul xaaliqin ñu ngi sant daawuda bu baax a baax a baax di ko gërëm démb woo naa ko wax nañ lu yàgg ak moom téléphone ci ma fas doon waxtaanee ak Amadou Wele di ko sant bu baax a baax di sant nag El Hadj Malick Diop bi ko fekkee ñu jox ko mu def synthèse bu paree Daouda ñaan euh, di sant nag Serigne Habib bu baax Serigne Habib bu Serigne Mansour ñu ngi koy sant bu baax ci cofeel bu mu am ci ñun bi ci topp moo di la tax ma di ko sant du mag ci kër Serigne Mansour waaye moom la ma yàlla booleel. ndax soxna asi di doomu sëriñ Mansour confé fa wadd wele bi mujj def fii ci grand théâtre Yaxya Jóob Mansour bii la yónni ne ko demal nga ne shérif dama bëgg te soxna asi mosuma yëgal sax fa wadd li lay won lu doy waar la Yaxya Jóob ñëw ne ma sëñ Mansour nee na asaf ah, la soxna aasi nee na dafa bëgg nga defal ko waxtaan bi ci sëñ Babacar ci pap maamam grand théâtre mu ne ko ah soxna asi kañ la daan yónnee ci man Yaxya li nga wax dinaa def te bayyun Mansour mbaay bu Tiwaawan wax ma ko ne kon dëgg la ca bés ba ma dem maa ngi fekk soxna asi ci cour bi mu ngi toog foofu sax dañ ko tant ba mu fees del ma ñëw rek mu ne bërit ci njaxlaf bi Chérif ñëw nga ma ne ko ah, mu ne nañ dem ñu dugg ci biir salle mu ne Mansour Mbaye waxal ñoo ñu diwee nga ne leen ñu arrêté Chérif ñëw na ñu arrêté ma ñëw mu teg ma ci fauteuil ba gën a rafet ci fauteuil yi ma toog Imam Moussa toog Amadou toog keroog Amadou moo indi yóbbante Serigne Mansour borom daara ji mu ne ma waxtaanal ma ci sama maam Serigne Babacar soxna Asi comme baayam rek ci sañ-sañ beeg yépp mu ngi toog nii jàkkaarloog man may waxtaan ci sëñ Babacar waxtaan ba yeggal moo ma gunge ba ci biti ndeke yóbbul nañ kaset bi sëriñ Mansour mu seetaan ko dal ni lu ma leen waxoon sama doom ji Chérif Ibrahima maa koy fekk këram décoré ko may ko xaalis may ko mbubb daldi ne sëñ Habib yow lu ma wax nag nga njëkkante def ko waaye bàyyil ma def ko ñu teg ci trois mois xawma ma mois sëñ Mansour génnaat dina sëñ Habiba mottali loolu mu ngi ko mottalee ci conférence yi ñoom daaw da jóob bii wakam mu ngi ci internet bi vidéo yaa ngi fi fan la summee mbubbam jox ma làmb poosam génnee xaalis jox ma ne ma sama bàyyee ko waxoon mottalil naa ko loolu kenn mënu ko fay mënoon na ko def sirriyan ci biir néegam wala yónni Mansour wala Daawuda ne ko joxal ma shérif waaye public conférence wakam ci kër Seydul Xaaji Malik ndax foofu waa Seydul Xaaji Malik fa la daan dal jóg taxaw summi mbubbam waaye loolu nit ku euh, mënu ko nit ku rëy mënu ko kon maa ngi koy sant Serigne Habib di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ku am itte la ku am pas-pas la ku bëgg baayam la lu mu xelmati ne baayam bëgg na ko rek bëgg na ko ku mu yëg ne it noonu nga baayam moom waxul ci yow daara daara daara te moo yeey nag ndax ku noonu sa bàyyi sori ko waaw bu ko noonu waaye sori ko ku mu yëg ne soppoo sëñ Mansour sax waxu ci yow dara waaw lu mu yëg ne sëriñ Mansour bëgg na ko rek taxaw na ci ba fii ma toog di wax ak yow na lu mu yëg ne bàyyam bëgg na ko rek mu nga ca moom sëñ Habib yal na ko yàlla kàttanal yal na ko yàlla dooleel yàlla bu ko kenn ëppale ci baayam waaye yàlla bu ko kenn ëppale ci kër Seydul Xaaji Malick ak kër maamam Seydi Aboubacar si kon su Xaaji Malick defee synthèse ba noppi ñu jox ko mu ñaan ñu door a ju liggéey maa ngi jéggulu ñépp nag wax jii ma doon wax su fekkee ne am na ko ci yëg ne li ma doon wax blessé na ko maa ngi koy jéggulu te xam ne du sama yéene ci moom su fekkee ne li ma doon wax am na ko mu derange maa ngi jéggulu kooku te di ko wax ne du sama yéene ci moom bu fekkee ne nag am na ñu mu neex ne jàpp ne barkeb sëriñ Mansour la waaye du sama xam-xam du sama dara barkeem la mbaax gu ko yàlla baaxal ba wax ci moom yomb in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu sant yàlla bu baax julli ci sayiduna muhammad bég bu baax ci boole gi nu yàlla boole ci tàkkusaanu mawlaana cheikh alxaaji mansour borom daara ji fuñ ko defee woon baax na waaye fiñ ko defee tamit am particularité bu rëy ci ñun muy zaawiye bii nu toog te ñu jàpp ni bokk na ci zaawiye yu cheikhuna ahmada tidiane reconnaître defe ko ci kanamu sunu kilifa bu ko waxtaanul woon it ñu bég bu désigné woon keneen mu def ko ñu bég waaye bu ko defee ñu am ñaari mbégte mooy mbégte waxtaan wi ak mbégte ki ko doon wax nuyu ko bu baax ñaanal ko li may def du synthèse waxtaan wi dafa dafa dafa dafa dafa mat defuma taaliqaat sax waaye damay def benn ziyaada rek pour def taxqiq ci li mu doon wax doog a wax li ma bëgg a wax nag xëñ na ci moom mënuma bañ a wax ci borom daara ji li mu wax Chérif tudd na alxaaji Ousseynou jiite xam naa ko bu baax a baax a baax a baax bu baax ndax lu mu gàtt gàtt mas naa yor téere dem ci moom mu jàngal ma bu ma daan tafsir alxuraan première jour wala deuxième dama koy def dama daan wër di dem ci mag ñi ñaari fan yu njëkk yi du ma fiir damay dem ci mag ñëpp ñoom pa xalifa kebe ñoom pa xalifa gay ñoom pa mbër kebe ñoom Baye Oustaz jiite ku nekk déglu la wër soog a daw nag ci gannaaw ëllëg sa tàmbali mus naa ko fekk muy firi alxuraan mu ma lay jose yu jiite yor yax yoru chara ma daal ne kenn ci xale yi ñun ñu toogoon góor gi lu mu yor dafa li kii wax dafa bëggoon lu mag mu ne nii lu mu wax ñu ne ko day laaj charaban nga yor mu ne mukk ci àdduna ñeent fukkeet keroog baat bii nga wax la wax ku sëñ suur borom daara ji ne doxal boo tiimul woon téere sax war koo mën a doxal beneen bi ci des mas nañoo toog ziar général dégg sëñ suur borom daara ji ne sama miir mi miir mi ma doon son la fajal nañ ma ko loolu defe naa dégg ko ki ko def góor gi Ousmane Ndiaye la tudd màkka ji nga wax ca la bokkoon góor gi Ousmane Ndiaye suñ sama kër baay ak seen ak këram ñoo jëlloo miir a dox ci diggante bi ngoog sëñ Mansour yóbbu ko Màkka biyaa gi la tàggatoo ak moom Chérif pour won la ni kas fu sëñ Mansour dafa doy waar góor gi dem Màkka comme ni mu yóbboo ñëpp rek matal lépp rek ba ngana léegi lépp nga bàyyi ko fa mu dem alaaji seenu jiite lañu woo ne ko góor gi génn na àdduna te Cheikh Ahmed li may wax ñoom dinañ ko seetaan moo aji woon Màkka nee nañ information bi fa la jógee xam nga kon alaaji Ousseynou jiite tee na lu dëgër mu jot sëñ Mansour borom daar li may wax Thiès yëpp ko dégg Sénégal sax laa wax. ñu bari sëñ Mansour jot xabaar bi ne Ousmane Ndiaye sama taalibe sama muqaddam Ousmane njaay du dee bi may tàggatoo moom biyaa gi li ma wax ak moom du dee tànk gisante waatuñu. gaa yi ne dafa ne ci xaal mais nañu wax famille ba rek ne leen njaboot gi dinañ ñëw ëllëg nangam nangam nañu préparé rey nañu nag man jàng naa ca kaamil ba <laughs> séddale ndek sëñ Mansour ma nga këram tëju. ne Ousmane Ndiaye bu deewee am na lu xew ci tariixa bi bi tàkku jàng nañ ko amee séddale nag li may wax nii nit ñaa ngi koy seetaan ku gis Chamet Tidiane jiite laaj ko Ahmed jiite wala nga gis Aliou Ndiaye doomu góor gi Idrissa Diop bi Chérif doon tudd ku ngeen xam rek laaj leen sëñ Mansour tëju ne góor gi il faut ñu gisewaat ñu wax ko lañu ñu waxoon Yuusufa rek ba mu ne man de naaguwuma yuusufa dana feeñ ñu ne ko papa ki deewoon bu yàgg yow daal xam naa ne yaa ngi ci sa naax gu yàgg ga rek sëñ Mansour tëju Baye Ousmane Ndiaye moo ma nettali lii nee na ma bi ñuy tollu Éthiopie lañ ma jox sëñ Mansour borom daara ji téléphone parce que dane naa wax ak moom ci avion bi lañ ko joxe téléphone bi ñu wàccee Éthiopie ci lañ ko joxe téléphone mu wax ak góor gi mu ne ko bul dee ba agsiwaat fii te dangay ngay dundaat góor gi jiitewaat nañu ci jàkka ñaari at soog a dee est-ce que lii kuy làmbatu mën nga ko moo tax shérif dafa déparé lu garaaw te loolu shérif il faut xam naa def nga ko defati nga ko mais il faut nga xëy benn tàkkusaan man huwa cheikhul xaaji Malik que li mu wax sànq bu ngeen ko déggee parce que cheikhul xaaji Malik li lay won ni du du kenn mooy ñi mu bàyyi booy seet te tilka asaaruna tadullu alayna fanzuru min baadina ila al ashar seetal ñi mu bàyyi kan moo bàyyi doom ju mel sañ sëñ Babacar Si sharqan wa gharban dem leen penkook soow sëñ Mansour da daan wax ni bu ma neexee ne sama baay ne bi wax jooju ñëwee ci moom bu la yow daal sama maam nee na rek dégg na ko bi mu koy tontu ci télé la ko tontoo daf ne bu ma neexee ne sama sama maam ne bu ma neexee sax bàyyi sama maam ne sama bàyyi ne bu yàggee sax bu ma neexee bàyyi sama baay bàyyi sama maam def naa diiwaat ma neen Mhm. loolu ku ko mën li tax nag mu am loolu suñu benn sëriñu daaraa ñu waxoon rahmatullahi alayhi yal na yàlla dolli ko daf ne woon sëñ Mansour dara jatu la jëfandikoo moo tax mu am li mu am ñu ne ko lan mooy darajatu mu ne darajatu ñeenti xaraf la deel ra jiim deel ta ta ta tombe mu ne deel ji mooy sëñ mën suur a mën ci daara ji looloo tax ñu ne ko borom daara ji shérif nee na jàngale sëñ Mansuur maa dégg mu nettali kenn nettalu ko mu ne bu ndékkeem daan ñëw fala ko añam di fekk fala jullee tax mu dog dem julli delsiwaat du sawar a lekk tànk njàngale mi jeexul 38 ans lii ci tele la ko wax daal ji mooy daara ji sëñ Mansuur a mën ci daara ji Sénégal duñ baale. gis nga shérif li muy daj Sénégal duñ baale Sénégal duñu laal ku demul. li imam Souleymane Samb naan ma ku demul fenn ñëpp yow la ñuy si doo dégg noonu waaye neen ku seen nga ne ci yoon wi booye boo waaj. darajatu muy deel ji. nee na daara ji la jëfandikoo. raa ji mooy nee na rawdu bi mësul génn Tiwaawan toog rawdu baayam. man bi may njëkk a gis man Mansour boobu El Hadj Abdou génnagul àdduna ci rawdu bi laa ko fekk te li ma ko may. mooy dama am marché Tiwaawoon benn marché ci police bi réfection bi ñu joxoon ma ko ma dem di ko def benn matinal ma fajaru nii rek teel a ñëw Tiwaawoon ne tey naa dem ci zawiya bi bi ma yegsee ay 9 sëriñ mën Mansour maa ngi ko fekk mu toog ci rawdu bi sës ci boobu raw melagul nii summi mbaxanaam mais da ngay yaakaar ni garab a fa toog ndax doo gis mu yëngu doo gis mu gestu ci ngay yége ni hayba bi wiraasa la bu mu donnoo ci bàyyam Cheikh Al Khalifa mi ñu daan wax du geesu. raaji mooy rawdu bi sëñ Mansour mën ci rawdu bi. ñëpp génn nañ dem dellusiwaat. Serigne Cheikh tukki na Serigne Abdou Al tukki na Pape Malick tukki na ku ne mas nga dem ay jamono ne ci yittey àdduna boole koog di doxal liggéey bi sëñ Mansour génnul xadara Tiwaawan première tukkeem dégg ngeen ko. 98 ngoog mu ne jiim ji. mooy jàkka ji sëñ suur a mën ci jàkka ji du tardé julli sëriñ fa ko wax léegi de nee nañ sëñ suur gan dëgg dëgg dëgg dëggay tax te waxtoo koy ñett mais du tardé julli jàkka ku bëgg a jiite nit ñi dangay ngay wane yoon ñetteel bi ñeenteel bi ci des nag mooy xaraf bu mujj bi mooy taaj yi mooy tool yi ku bayul ar na arnak taalibe yi ku bayul mënoo yóbbu ñetti téeméeri nit màkk ak nàngam sëñ mën suur koom cër bi mu amoon nekkul cir bu nëbbu loolu nag ku mu jaaxal rek ku mu jaaxal dangay dugg sa néeg nga cliquer xadaratul ilaahiya ne leen dama bëgg a xam kan mooy sëriñ Babacar Sy ko xam sëñ Babacar Sy digg ne sëñ Mansour yorul dara ndax lan mooy cheikh al xalifa Aboubacar si sëriñ Babacar si baayam ku mu jur war nga mën a mel noonu kon shérif jotaayu tay bi jotaayu sëriñ cheikh am na solo jotaay yépp alxaaji Mansour am na solo turandoom taw dëgg la de mayam yépp turandoom sëñ Mansour dafa donn turandoom ci dara mooy xalimaam moo gën a ñaw kàddoom mam Mansour noonu la meloon bu waree wax fukk dana bind ñaar téeméer soo a wax fukk sëñ Mansour ni xam-xam bi meloon dafa jéggi dayoo buy sotteeku day mel ni ku yàlla may loo xam ni kenn xamul lu mu doon. kon nag alhamdulilahi rabbil alamin parce que dama am ay temps ma waxoon fi maa ngi moom ci benn conférence am nu ma classé magi dëkk bi ki yee jël latéral kii yee def lii Maodo toccaax yi sam benn wëlëri ne ma damay dem Gàmbi dégg ku lay tontu ci benn rajo naan kooku yara di ko ba dee di def mag ñi fubalkat ma ne ko sëriñam daa dugalul rek <laughs> mais dañ waxante dëgg Sénégal ñépp jàmbaar lañu ku ci ne jàmbaar nga ku ci ne jàmbaar nga mais wa sharafil quran du par parloo du dara man sam baay bu daan jàngale téere yi ba war a jël na téere Maodo ci daara ji li may wax laaj leen ko ñoom Kabir Seen ñoom Pape An ñoom Idrissa Diop ñi ñëpp bu daan jël téere Maodo da ngay jàpp ni dafa mel ni ku jóge ci transité jóge ci frontière jëm ci beneen frontière dana naa ah, ñu ngi jëm nag ci borom téere bi nga xam ni du ñii duñu moom mais sëñ bi 66 ans nga toj Sénégal toj àddina bi toj àddina Afrique ñu lay joobe ba nëgë ni naasiril xaq bil xaq samp Sénégal mais Cheikh Al Hadj Umar du cuune ku mu lugat ci sa biiru way jur nga nekk ca azal mu lugat la indi la ca alamul arwaax négocier ak Cheikhuna Tidiane négocier ak Sayyiduna Muhammad ñu ne ko kenn mën a porter combat bi l'islam du lesek du échec Cheikh Al Hadj la kon nag suñu mbégte la Chérif yàlla na yàlla guddal sa fan na nag gars yi dañ naan ko day dóor <laughs> mais Chérif bu ma bu ma bu ma neexoon sax yow léegi looy dóorati maanaam kuy dóor dafa am loo loo war a dóor pour mu ñëw allahuma laa adur ah. lan ngay dóor maanaam danga naan damay dóor pour dara lan ngay dóor tey lan yow yàlla defal na la sutura ñi dend ak yow sax alhamdulillahi rabbil alamin mm-hmm. lii xam nga Sénégal booy wax ci nit xoolal léegi nag li tax ma indi wax boobu xam nga lan la mooy ñii wax ni Chérif xamul Alaaji Abdou du ma wax doomu alaaj abdu doomu alaaj abdu moom dama am xorma ci ñoom njaboot ku sant si bokkoo ci lii may wax waaye dama ne alaaj abdu bàyyiwul taalibe bu tollook yow génération bu la tane yow du ci diine du ci njub du ci jaar ci yoon du ci jàmbaare du ci taxawaay waa ku mel noonu nag dëgg-dëgg soo yéenewul Cheikh Al Hadj xam ko même bu ko xamul woon waraa nga am yéene mu xam ko rawatina nag ba mu bokkee ci njabootam alxaaj du defal ko loo xam ni kenn werante woo ko mu am nag xorma shérif xam nga ñun amuñu liberté ñun kër Seydil Xaaji Malik la yaakaar ku ñu àndal xool la nooy xoole bët kër Maodo bu ñu koy xam di xam fu ñu lay téye. kii laa ko tuddee kon nag Maodo doomam a ngi nii kii judduwul daaw daaw nga judd <laughs> ah xam nga gars yi dañuy def da ngay dabaatal. kii laa ko te xoolal li gën a yéeme moom doo nga ñëw. waaw kon nag shérif. maa ngi lay gërëm bu baax Haydara lii rek laa bëggoon a wax yow fii kenn wuy si wula fi ah. maanaam dañ waxante dëgg nag mën nga Ismaïla maa ngi lay ziar <laughs> Chérifa tax ñu xamante waaye nit ku baax la sa njaboot la ku la bëgg la tamit mm-hmm. waaw bu waxee ak yow téléphone da ngay yëg ni cofee lay wax Ismaïla bu Sonatel waaw dëgg la dëgg la xam nga galan tëgg boo demoon tey jii kër géwél yi am na galan gu ñuy wootee mm-hmm. maanaam ngeen baal ma jël benn tur ndax ngeen xam ko mbay jéy fay su toogoon ci biir saalam am na galan gu muy tëgg rakk yi génn galan googu woote la yow woo woowoo kenn kenn wuy siwu la xadara bi ku fi ñëw yont yàlla muhammad la wuy si xadara bi ku fi ñëw na Tiijaan la wuy si ku fi ñëw yàlla lay dàq ku fi ñëw barke mag ñi lay wut si te li ma wér te wóor mooy yal na yàlla guddal sa fan bu guddalee sa dina dina leeral lu bari mooy dana wone ni tegu nga ci yoon jub nga man dañu wéet ma ne ko shérif mu ne ma ne ko li ngay doxal mu ne ma ma ne doxul ci hasard ma dara billaahi mi ngi nii toog ma ne ko li ngay doxal te tamit ay nit bu ñuy ànd man fi nga ne laa bëgg a ñëw <laughs> parce que tamit lii mënu ma ko saay <laughs> mu ne ma xaaj ma ne ko mu ne ma dama lay dénk mbir nekkal ci lii ma lay wax ne nag su ma neexee ma def nii nga laal sama yaram nga xool duma la wax duma duma duma aar sama bopp de waaye nekkal ci lii ma la wax ma ne ko lan mu ne ma mooy fexeel ba laazim bu ko fowee ñëw naa sa kër fekk la ñu ne da ngaa demoon wasifa ji fexeel bay teewe wasifa heure boo amee jot soo ko mënul bul ko tardé sa kurus ñetteel bi ci des nga fonk xadaratul jumaa nga xool ku la xaar ci ginnaaw mooy sonn ca kanam nga jëm ku ànd ak yow nag te li mu yor loo ci soxla mu jox la te yow li nga yor lijjantiwu te pexe bu mu am won la yoon kooku sëñ bi kenn àndul ak kilifa gu gën gii di ba pare am reconnaissance nag xàmmee mooy lu mbooloo xat-xat bu yegsee mu xam ban xaq nga am ci moom loolu bëri na kilifa goo xam ni boo àndeek moom rek sànq bi mu tuddee mbubb imaam euh, maam góor toog bi li tax ma ree dama imaginer maam góor toog ni mu toll ak mbubu sëñ Mansour mais suñu benn góor la loolu dal mën Mansour da ko may mbubu góor gi comme gaal waaye àjjuma bu jotee day wut benn xale bu ko topp nii téye ma ma dégg benn doomam naan ma xam nga luy problème am fu mu koy fóote mu ne luy bis mu koy fóote mu ne man heure boo xam ne kii kenn war koo fóot ci paan yi ngeen di fóote beneen bi ci des foo ko fóotee fooy tuur ndox mi ma ne xoolal kii ni mu fonkee am xorma Chérif ñu ngi lay gërëm bu baax ay dara tey dañoo amoon mbégte rek bi ñuy mujj déggante bërki démb ndax bu nekkee ci biti tamit tout le temps ñi ngi jéem di ko joindre seet fu mu nekk bu fa nekkul ñu ngi seet njabootam parce que li may wax euh, sama soxna bi nekk euh, France euh, xaw ko Chérif njabootam macha allahu rabbuna shérif ne ko man duma la tàgg duma la wax dara xaaj Malick ma ne ko am ah, mu ne ma dama ku ma lay may ma ne ko woon nag il faut nga yónnee ma whatsapp ma xool ko <laughs> mu mer nag ne ma doyuma la <laughs> ma ne ko wax doy nga ma waaye maa gën a doy sam bopp <laughs> faf yàlla nag ba ma demee mu faf ëpp ma doy nag moo tax bu lay may moom bu ko nee <laughs> woon ma WhatsApp bàyyi ko rek Chérif ku ne xam na su am euh, gërëm nag tey sama goro mais gërëm tamit Chérif di la ko seedeel xadara ba reen duudu mii toog tey bu ma yëgoon nii dinañ fi daje montram laay takk montre bu cher la ma jox wax dëgg yàlla yamu ci def na loo xam ne fréquenté na sama kër yoon yoo xam as daf ma ne lii nag moom ma ne ko am ne ma yow yaa moom lii ñii yow yaa tax ñuy def lii parce que seen jot mayu leen ko. xadara ba ñu taxawu ko ngir lan jëmmi kii taxawu xadara ba ren def lu ne ma ñëw mu mel ni shérif fa fa ne préparé lépp ma yegg si waxtaan woo mu jag mu bañ a jag ñu téye ko réyal ko yamuñu ci kenn ku ne jóg këram ñëw ziar suñu ngir jëmmi shérif loolu. balaa koo kenn def ci ñoom da ci dañuy dañuy xam ni lii shérif bëgg na ci dañoo xam ni shérif bëgg na ci ñu defal Hajj Malick loolu gis nga nit nag boo àndeek moom xolam set mu yéene la li mu yéene njabootam yéene li mu yéene boppam kooku loo am daawda jébbal ko ko kon nag euh, Dudu maa ngi lay yóbbante ren di la ñaanal yal yàlla bàyyi la vacances bi ba nga delluwaat ak jàmm bëgg nañ kontaan nañ bu baax ñu ñaan sunu borom yàlla na yàlla defal la sutura Chérif Ibrahima daal yàlla na yàlla guddal yàlla dool sutura lii insha allahu rab naa day yokk nit ñi am na ñoo xam bu ñu sampee xadara dinañ créer joxe ay paas joxe lii def lii toggi reer lépp pour wootal léeg-léeg sax nga gis ku jënd nag nàndal nag ba pour woo nit ñi ñu ñëw nga rey ko yooyu yëpp mi ngi am parce que nit ñi noonu la leen yàlla bindee dañu yaakaar ni lii defar nit mi ngi ci nit ñi lii defar nit mi ngi ci yàlla fexeel jubóog sa borom te Cheikh na Tidiane ubbil nañu bunt bi laazim wazifa xadara parce que wa laazim rek boo koy def yaa ngi ci mboolem awaalim yi parce que nit ku nekk awaalim yi trois mille maanaam cent vingt quatre mille awaalim moo am hmm. heure boo toogee Cheikh na Tijaan loolu tax mu doon négocier ak yonent wi ne ko duma bàyyi yonent bi ne ko fatruk jamiaat yooyu ñu doon waxante noonu cheikh daf ne ko li ma bëgg mooy awaalim yépp sa làmmiñ a nga fa yegg dama bëgg nga jox ma dok yoo xam ni sama njaboot ku toog këram ca néegam di ko liggéey nga roofal ma ko cent vingt-quatre mille làmmiñ muy rëkk awaalim yépp di yëngatu ba bu jógee ñu xam ni mooma loolu waral ngeen déggoon seexal Al Hadj Malick bu duggaan néeg di zikkar ba daan wax sax ni lekk léeg mag ñi daan wax ni boo duggee da ngay def ay bopp yu bëree fi ne déedéet na Tiijaan moo liggéey loolu loolu nag ku ko bëgg sonneel lii Chérif bunt boobu nga ubbi ñu ngi lay gërëm di la sant lii rek moo nekkoon sunu kàddu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim waaw ah, ah, yooyu yëpp ay xeetu àndin la rek waaw xeetu àndin la te mbaax a tax mu jógee Thiès ñëw fii imaamu jàkka imaamu juma la waaw day jiite ci université bu Thiès juma ja moo koy jiite amul jot wax dëgg yàlla fii kenn amu fi jot waaye moom moo ci raw kon bu bàyyee léppam ñëw toog ak ñun ah ñaanaat ñu ñu waxtaan ci Seydil xaaju Malick ma yëg ne daaw da ku bëgg Seydil Hadj Malick la mas nañuy wax bés ba mu yàgg bu ma ne bu ma déggee ku naan alaaji Malick yaa ngi koy fàttale mu ne su ma déggee ku naan alaaji Malick ni sama xol bi di metti te ba a wax Seydi yaa ngi koy fàttale ko du xorma ah wala nga ne Maodo boobu waaw ah, Maodo turu turu màggal la waaw ah, turu màggal la wala nga ne Maodo waaye alaaji Malick ku ko ciy wax doo am daraja doo liggéey ci yàlla lu dem man maa la ko wax di nga liggéey am am loo jëndee mburu waaye doo tabax kër hmm? mukk doo tabax kër dinga am loo loo añ reer ndékki nag te boo ci wéyee dootoo am añ reer ak ndékki ngay am yooyu dinañ ci ñëw insha allah benn neel Maodo wala Cheikhul Hadj Malick wala Seydul Hadj Malick wala nga ne Maodo kon Maodo gàtt na ñëpp a ko mën neel Maodo rek waaye alaaji Malick mel ni alaaji Malick ak sa bàyyee moroom lañ du noonu te président de la république bi boo koy tudd jat koo jata jata jat ndax bëgg ci moom dara rek son excellence gardien de la constitution monsieur le président de la république Macky Sall ci sëriñ si fi nekk mënoo leen jox orma koo ci tudd di ko sàllalu sa bopp kon daawuda bismillah kàddu gaa ñaanal ñaanal bu ko dellu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 amiin